jërëjëf jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax rek comme euh, booba léegi léegi ñu koy defee ñu nekk ak ki nga xamante ne mooy suñu frère Mama Lamine yendoo ak moom ci tiis bi nga xamante ne suñu borom teg na ko ci kawam waaye comme ni ñu ko waxee rek boobu léegi ay xaritam ay am di jàmmam ñu ngi ñëw bokk ak moom li nga xamante ne moo di tiis gi waaye ñu daje fi nag ak suñu doyen di ko xamante ni tamit dootuñu ko présenté ci làmb muy euh, sama xarit bu baax a baax a baax Baye Balla Mboup Baye ngi lay nuyu di la siyaare di la jàll li ne moom moom la ñu bokk. oui maa ngi lay fay bu baax a baax mon frère maa ngi lay fay ah di la siyaar yow tamit di la jox ah sa wàccuwaay di la jaale aussi li ñu bokk. ah di nuyu bu baax a baax réew mi di nuyu bitim réew di nuyu képp koo xamante ni yéen yaa ngi ñuy seetaan ci Sénégal Buzz di ñaanal doomu sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi fépp ci àdduna bi fépp fu doomu sénégalais nekk rek ñu ngi lay ñaanal jàmm ju sax sutura daa man yàlla defal la wér ak le mucc ak mucc la ca fa nga nekk di ñaanal suñu lions yi di leen félicité démb ci victoire bu rëy bi nga xamante ni am nañ ko contre Gambie ah ñu leen di ñaanal suñu borom lépp loo xamante ni wuti ji nañ ko rek ngir indi ndam li fii ci Sénégal yal ko yàlla yombalal te muy li gën yàlla def muy kaddu nuyoo yu am solo Baye comme ni koy waxee rek saa àdduna daf ñuy jàngal waaye daf ñuy gën a wan ni rek ah, làmb dañu cee nekk waaye ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay tey suñu frère am tiis gu mel nii ah, képp ku nitu làmb gis nañ la nga sol sa dàll ñëw jaale si ko yëg-yëg boobu tey. bon mooy li ma wax rek xam nga làmb spoor la boo xam ni dafa war a boole waaye warul di tàkkale. làmb sport bu noble la. Mhm. la boo xamante ni tey ñi xamante. ci làmb dafa bari ñi nga xamante ni làmb tax ñoo làmb moo tax ñu xamante. Mhm. di demlante di dikkalante ndax làmb bari na. Mhm. créer ay groupe boo xoolee ay groupe baax ñu ngi fi woon am na ay groupe yu bëri yoo xamante ni fii groupe noonu làmb mi ngi fi. Mhm. ah ah Lutte TV Lutte TV comme ak yeneen i groupe yoo xamante ni promoteurs yi ak seen groupe ñu dem ba làmb def ñu benn famille ñuy demlante di dikkalante. te yaay dafa fort maama Lamine nekk kenn ci ñun. Maama Lamine bu dul dara sunu frère la. Mhm. nit ku baax ku nu respecté la ku jox cër la fu mu ñu gis jox nu sunu cër jox nu sunu wàccuwaay. Mhm. kon donc bu nu toogee yëg ni Maama Lamine yaayam dafa wàññeeku lépp lu nu jàppoon war nañ ko mën a bàyyi ñëw teew ci bés bi bokk ak moom naqar bi. Mhm. tey nag dañ fi teew en tant que frère. waaye dañ fi teew teewal toute l'équipe de Bantamba TV. teewal ak lu làmb. ci li nga xamante ni. moom la sunu frère ñàkk tey ñu ko koy jaale. Mhm. di wax baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw ndax ñun ñëpp ci yàlla la ñu jóge mhm. te ci yàlla la ñuy dellu. Mhm. donc baat bi yow boo ko xamee. te muy dëgg ci yow lépp looy def war nga ko xool. lépp looy waxit war nga ko xool baat bi yii rek war naa tax ñu bañ di xiiroo ñu bañ di ŋaayoo ñu bañ di waxanteelu ñaaw parce que tey mën ngaa xiiroo nit ki bu subaa mu jiitu la war ngaa am rusu ak gàccewu ñëw teew ci dëjëm dëgg la tey mën ngaa gitaangaas ak nit ki gitaangaas bu metti bu ëllëgee yàlla indi jàmm bu la fekkoon nga wax ca wax ju ñaaw maanaam dootoo set mukk te yooyu yëpp dafa am dafa dafa jar bàyyi xel mhm. wax ju ñaaw baaxul làmb gagne-pain la. mbëri ci nekk ñoom ñooy mayente xaalis. mbëri ci nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. ñooy mayante xaalis te ñoom umpale wuñ tuuti ci dara mën nañ bëri nii benn tàkkusaan après ay minutes la bu jeexee jeex na. ñoom ñooy demalante seen biir. ñooy wootante seen biir bëri na ci mbër yi ci VIP yeeg ci espoir yi ci ci mbër mu mu mën a doon ñoo xamante ni ñoom ñëpp ku ci nekk yor nga sa numéro morom da ngeen di dem leen da ngeen di waxtaan. Mm-hmm. waaw léeg-léeg mbër am komba koo xam ni bokkul ak moom écurie bokkul ak moom sax gox ba nu dëkk day mbër day am combat mu woo ko conseillé ko ci komba bi kon mu ngi lay wan ni ñoom ñu ngi fi déggoo seen biir mm-hmm. li ci des mooy fans club yi supporters yi ñu ñëpp ñu jàppoo doon benn fexe di demlante di dëkkalante parce que yu demee nii. Mhm. moo tax. Mhm. waaw doomu aadama buy dund ci kaw suuf. Mhm. waaw bés dina ñëw. waaw ñu takk say tànk ba mu dëgër takk say loxo yor la ci biir bàmmeel. bu la fekkoon nga jëf lu baax nag jëf ju baax jooju dala fay fekk. bu la fekkoon nga jëf leneen nag. leneen loolu dala fay fekk. waaw kon yàlla nañu yàlla xiir ci jëf. lu baax di jaalewaat bu baax Mama Lamine. di jaale waa jàmm gën yëpp. ah di jaale tamit Siteu. rës la pro. ah di jaale képp koo xamante ni rek ak Chérif. sunu frère la mooy seexu Maama Lamine. ñu ngi leen di jaale di ñaanal sunu yaay ji jiitu yàlla ko yàlla sunu borom xare ca àjjana firdawsi. ne ci làmb la ñan la nga ñoo wax tuuti si seen i jikko mama nekk ci làmb tey suñ la doon laaj kan mooy mama ak ni nga ko xamee mama ban façon nit la que nit ku modeste la ku làmb ji bëri di sax ci moom. non xeebul kenn Maama Lamine ñëpp la respecté te Maama ku am cër la ci jëmmi doomu aadama <laughs> ah Maama Lamine foo ko seen bëñ yi ngay njëkk a seen dëgg la Maama nit la xale bu yaru la xale bu am ak taalibe la tey boo gisee tey nga ñëw fii ci kër Maama Lamine fekk fi ñëpp jikkoom moo ko waral jikko ju rafet ji ak cër bi nga xamante ni daf ko jox doomu aadama yi ak cër bi nga xamante ni daf ko jox axlu làmb àdduna ku dul joxe cër kenn du la jox cër mhm. ku dul toppe it kenn du la topp mhm. te yar dafa am solo Mm-hmm. waaw yar mm-hmm. yar li tax mu am solo boo fekkee ñaari xale yuy xeex kenn ki yor yar kenn ki yorul yar ku yor yar dana xaw a yar dana xaw a rey ki yorul yar yar dafa am solo maama tey lu mu am rek yaram ak teem ak i tegginam mm-hmm. moo ko may ñun daal xam nañ ci maama Lamine jikko ju rafet xam nañ ci maama Lamine as gor xam nañ ci maama Lamine ak taalibe waaw xam nañ ak ci maama Lamine ku fonk dëkkuwaay bi mu dëkk te loolu c'est très important waaw mm-hmm. ah, nit dangay fonk say mbokk bëgg say mbokk tey liñ ko fi seedeel seedeel ko ndeyam ji rek loolu rek dafa neex mm-hmm. nit ku ne ci kaw suuf ñaan nga yàlla say say mbokk bu ñu jëlee kaddu seede ci yow kàddu gu rafet parce que képp ku la mën a seedeel te say mbokk seedeelun la dafay mel ni lan la seedeel zéro la waaw moo tax nit ki booy dund fexeel ba jubug say mbokk fexeel ba ànd ak say mbokk fexeel ba doon benn ak say mbokk ndax xam ba xam jeex xam sa bopp ci gën waaye mën ba mën jeex mëneeg say bokk ci gën a wóor waaye maama la min fexe ne ba mëneeg ay bokkam mëneeg ay dëkkandoom mëneeg ay abdi jàmbam mhm. jikko ju rafet rek la ñu xam ci moom jikko ju rafet rek la ñu xam ci xam ci moom macha allah macha allah Baye yaakaar naa ne kaddu yooyu am na solo loolu rek waaye tey euh, ci kaddu ñaaxaat xam ne ni mu mel ci doom nan koy dénk moom maam ma yaay dafa foor nawle li muy foor foor foor foor yaay moo ko gën a foor ku juum ba ndey di dund te teraloo ko bégaloo ko yaa ngi ci erreur hmm. dootoo tedd yow te dootoo bég hmm. yaay dafa foor xam nga teraanga buñ ko waxee ne da ngay teral sa yaay rek ñu ci bëri xaalis lañ ko teg. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne am na nañu xaalis mais mënuñu fexe ba bégal seen i jur dëgg la mais am na ñoo xam ne yoru yoruñu dara waaye sa yaay lu mu soxla. Mm. nga daw bu la yónnee yaa ca gaaw sa yaay bu ko dara dee metti nga ànd ak moom toog ci wetam. di ko mittitlu bu la dégalee nga def bu la aayee nga bax loolu teraanga mënu ko weesu. Mm-hmm. nga bañ a fitnaal sa jur doom du tiital way juróom du tiital ndeyam ji ko juru ndax ëmb juróom-ñeenti weer dafa metti benn bis ñëw xaw laa gaañ nga màgg tiital sa way jur da ngay tiit ba ba ngay faatu yaay du moroom yaay yaay boo gisee ñu tudd yaay ñetti yoon rek ci teg baay mooy yaay sa yaay xanaa xamoo jabar mën na laa wor ki nga bokkal ndey ak baay sax mën na laa wor doom ji nga jur mën na laa wor sa baay bi la jur mën na laa wor parce que baay baayu ñëpp la. mën naa xëy bàyyi la fi dem ci yeneen i doom mais ndey ji la jur nday sa yaay. du la wur mukk ci àddina. wallaay moo tax ku am sa nday na ko téye. sa nday lu mu metti metti bu la àdduna gépp doon daw moom moo lay jël. moo lay uuf moo lay sang ba nga set moo lay raxas moo lay laxas moo lay téye. Mm-hmm. yaay boo demee ba jaaxle ndax xamoo foo jëm sa yaay moo lay jël moo lay metti ci dans de très bonnes conditions nga judd ci hôpital bi ñu laxas la jox la sa yaay bu ko neexoon bu neexoon sa yaay bàyyi la fa wala bu génnee dem sànni la ci mbedd bi defu ko sa yaay daf la téye di la tette pendant des années ngay jooy ci kawam du nelaw guddi du nelaw bëccëg ngay jooy ci kawam di di di neefere ci kawam di di di tuur ndox ci kawam lépp mu agwantaar ko agwantaar mooy mu muñ ko di ko tolore loolu yaay rek moo ko man moo tax képp ku mën a jàpp sa wayjur wu jigéen nanga ko jàpp jàpp sa wayjur wu jigéen ba dégg ci daali ba dégg ci ngërëm moom loolu day tax a raw day tax a mucc day tax sax mas kenn dootu la ci mën. day tax boo foo tax wax ñu dégg la sa yaay bu la déggalee nga def mu aay la nga bàyyi nga koy bégal foo toll. Mm. di kaf ak moom di reetaan ak moom doo ko nëbbu dara foo tax wax ñu dégg la am na ñoo xam ne fu ñu tax wax duñ leen déglu am na ñoo xamante ni mënuñoo yilif kenn ci àdduna. parce que dañoo tiital seen ndey ji leen. yàlla nañu yàlla muccal ci yooyu doom mhm. waaw képp ku koy defit yàlla na la yàlla soppi. Mhm. ba jubale la ak sa way jur way jur du morom. Mhm. way jur rawatina way jur wu jigéen. kooku xam nga loo man boo bëggee ndam. foo tollu de ko neng nengal. waaw boo ko neng nengalee sunu borom dana la neng nengal go jóg ca kaw. wallaahi boo ko dee bégal sunu borom moo lay bégal loolu par force la kenn mënu ci dara. ndax yàlla sunu borom la mu wax ci diggante ndey ak doom. dara du ko dindi. waaw yow sa ndam. man sama ndam. ndamu bul laal ndamu rës la promis. waaw mi ngi ci sunu jur yi. wallaahi mi ngi ci sunu wéyjur yi. alxuraan wax na ko yàlla wax ko seen àjjana mi ngi seen suufu tànku wéyjur. ngi seen suufu tànku wéyjur. wéyjur dafa fort. yërmande ji ci yaay yi. yërmande ci yaay amul ci kenn. wallaahi moo tax na nu fonkaat sunu wéyjur yi di ñaanal sunu yaay yi sunu borom may leen gudd fan gu ànd ak wér ak wérle. amiin des nga gis yaay joo xam ni dafa sonn ci doom sonn ci kër mais bu xale yi di màgg di mën du ko fekkee mhm. te lépp moom la li baax ci kër yëpp ñoom la ndax difficile de vivre avec la femme mais impossible de vivre sans la femme mhm. jigéen ju baax jigéen ju baax laa la wax kër gu fi jag ñoom ñoo ko jagal dëkk sax bu jagee jigéen ñi la waaw moo tax sunu suñu jur yi amuñu seen fay mhm. waaw damaa yàgg a gis maire yoo xamante ni seen sëy yëpp dañ cee xare badar ki ne la moo wayoon ne sëy xare la mhm. saa boo ci juree doom jam nañu la wallaahi seen sëy yëpp dañoo xare badar laa la wax nekk ci biir kër di fa sonn nekk ci biir kër di fa rey seen bopp nekk ci biir kër di fa dégg lu ne nekk ci biir kër ñu leen fay bundu xataal di leen toroxal di leen xoolal di leen maltraité ñu taxaw rek di sëy te yàlla rek tax lillahi wahdahu xaalisan ñooñu ñoo fa jur ñoo xamante ni bu nu màggee mën nanoo yorum réew bu nu màggee bu nu waxee ñu dégg leen am na ci maire yoo xam ne fekke fekke fekkewuñ ko te lépp ñoom la mm-hmm. lépp lépp ñoo daan yor puso yi ci kër yi di ñaw duñ wax lu ñaaw duñ ko def njaboot gi nu jur ak njabootu jàmbur la ñu yemale am na ci ñoo xamante ne nag fekke nañ ko yal nañ koy gën di fekke ci barke yonent bi yaay daal amul remplace mm-hmm. sunu yaay yi mm-hmm. yàlla na yàlla may leen gudd fan amiin bu ànd ak wér ak wérle mm-hmm. ci barke Cheikhul Khadim amiin yàlla teral la waaye ku toroxal sa yaay toroxal sa ndey nag mënta weesu foo toll di ko teg fitna ñu naan doomu diw ji nit da ngay jombale sa bopp yenn yi des fois da war a xool sa carte d'identité xool ñi la jur xool fi nga bokk xool ndaxam lii war naa ko def mhm. waaw Serigne Mahfous Mbacké l'éducateur des esprits saints mu ni dane mhm. dane dana nit du gëm boppam mi nit dafay xam boppam xam mooy kan xam boppam mënta weesu nga xam yow ñan ñoo la jur. Mm-hmm. xam ñi la meññ xam yaay kan xam sama ndey la def ci tund wi. la preuve foo jaar am na ci ñoo xamante ni fu nu jaar ñu ne la sa nday a baax. li mu def ci tund wi. ah boo góorgóorloo tuuti dana baax. Mhm. wala sa baay kenn gënu ko. li mu def ci tund wi yooyu ndamu doomu aadama la léegi nag sa ndey bu defee loolu nag da ngay fexe lu ko yokk waaye bul ko wàññi mukk. wallaay dëgg la waaw am na ñoo xam ne seen i ndey seen liggéey ba dee. Mhm. waa ñu xëy moo tax ay ku man sa ndeyee tax ku manul dara. sa mhm. ndeyee tax man gëw ma lool de. dëgg la ndey ju liggéey am na waaye ndey ju nangu mooy wàllu doom am na ñoo xamante ni seen i am na ñoo xamante ni seen seen i ndey dafa nangu woon seeni i baay moo tax duñu torox mukk waaw nday ku mën sa ndey tax ku mënul dara nga dugg ci famille boo xamante ni kenn fay man waaw ñi des duñu mën te ñëpp a bokk ndey ak te ñëpp a bokk ndey ak mooy ku mën sa ndey tax ku manul dara wax ju yàqu la wax ju yàqul la mm. des fois ñu wax yoo xamante ni teguñu ko fenn waaw risque mu indala wërsëgu jaam yàlla la yàlla mooy wërsëg yi di ko séddale mm. waaye jigéen ju fi sëy jàpp sa borom kër fonk ko muñal ko suturaal ko nangul ko doom joo am sunu borom dana ko barke wallaahi lépp mu ngi ci biir jigéen ñi. maa ngi sunu sunu borom la li baax lépp ci ñoom la ko yàlla def. Mhm. waaw moo tax yàlla ñu yàlla suñu borom bàyyeeg sunu yaay yi. amiin ah ci barke yonent bi sunu yaay yi nga xamante ni jiitu nañu ci kërub dëgg. yàlla na yàlla suñu borom. ah xare leen ca àjjana firdawsi yi may may profité rek. Mhm. di jaale waa kër sëñ Fallou yëpp. Mhm, ah di jaale sëñ Abdou Karim Mbakke. dëgg la. borom euh, borom makaarimal axlaa mhm. ah di ko jaale sëñ Galas Sindi di mhm. waaw nit ku baax di ko jaale suma rakk boo xamante ni mu nga ca Belgique sa Bruxelles mhm. sañ Galas Sindi di ne mu demoon na ba këram maanaam gane ji ko foofu ca Bruxelles sëñ Galas Sindi di nekkoon koo xamante ni borom xam-xam bu wér la waaw dafa doonoon maamam ci jikko ji ci dal ji sëñ Galas wax ja bariwul sëñ Galas Sindi di da ko naan jàkk xam ni kii dretu sëñ Fàllu la xam ni kii sëñ Fàllu képp moo nekk ci moom waaw Mm-hmm. wax ja bariwul waaye bu ñaanee nga xam ni bu baax ku yiw ku tedd ku bari xam-xam ku sell ñaan na. Mm-hmm. àdduna nag moom moo bindoo nii demal maa ngi ñëw la. waaw waaw. Mm-hmm. yàlla suñu borom lu mu dogal ci jaam kenn mënu ci dara. ñu ngi koy jaale ah, a wa ëttu kër diine yëpp. yi ci réew mi yëpp ñu ngi leen koy jaale ndax Sénégal moom benn bopp la kenn mënu koo xar tey bu murit gi bu nu amee bànneex. Mm. waa ti axlu Tidiane am ko axlu Laayeen am ko bu nu amee naqar ñoom tamit noonu lañ koy amee mhm. kon ñu ngi koy jaale Sénégal gépp di ko jaale yit Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ko hmm. ñaanal mu yàgg fi loolu téewéer Mbàkke hmm. ndax Mbàkke yow loo a maa ngi lay jaajëfal bu jërëjëf Baye yaakaar naa ne kaddu yi am na solo comme ni ma koy faral di waxe rek saa su ne bëgg nañ bu ñu amee ak nit ku mel ni yow jotaay mu doon kaddu yoo xamante ne kon du njëriñ lay doon ci askan wi te jàpp naa ne képp kuy déglu kaddu yi rek dina doon njëriñ ci yaw mm-hmm. am naa mbégte bu baax a baax a baax ci am ak yow jotaay rawatina kaddu yi nga yëkkati ma bàyyi rek nga joxe dernier kaddu yi waaw man tamit am naa mbégte bu baax a baax xanaa di wax rek ñu ànd bokk ndey. Mhm. bokk baay te joxante loxo ta xam ni ñu bokk teen bi ñooy laxasooy goj mhm. coow li ci pindu teen bi nag gaa ñi amul baag la rek waaye ñam baag doo leen dégg. dëgg la de <laughs> waaw ñu joxante loxo dafa am solo bokku ndey bokk baay rës la pro. Mhm. loo yéene sa moroom. wala loo yéene sa bopp. ci lu baax yéene ko sa moroom ndax innamal axmaalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa nit da nga yéene sa bopp lu baax yéene ko sa moroomu jullit mhm. wàññiwul dara waaye man maa war a am res la pour warul am mhm. man maa war a dem res la pour warul dem yow doo dem fenn doo am dara te yàlla dogal su jaam bi mhm. nga nangu ko ndax yàlla bu ne waaw nga waaw soo ko defee ci ngëneelam yi kenn du la ci ëppale waaye yàlla ne waaw nga ne déet eh. boo ko waxee la tubaab ba waxoon rek picce dama la yërëm yal na yàlla def jàmm amiin baay yal na yàlla def jàmm amiin amiin ndax jàmm mooy mm. lépp di ñaan la alaaji abdu ñaanoon yal na mm. yàlla tàppe xol yi amiin yaa rabbal alamin amiin yal nañu yàlla muccal ci pexeb noonu mm-hmm. yal nañu yàlla laq mm-hmm. fa yàq yeggul mm-hmm. te nu moytu di yàq doomu aadama yàq doomu aadama wuurul koo toog di ko yàq jàppal ni bés mi ngi ñëw yow danan la yàq te doo ko yëg ndax ku nekk li nga leble moom lan lay fay ndax goes around comes around mm-hmm. waaw hasard amul waaw buñ la joxee balu tenks nga jàkkaarloog miir bi dóor ko ci mm. boo ko ci dóoree fan la jëm sa kaw sa kaw la jëm day dellu si na noonu la mm. nit kuy dund ci kaw suuf sa xolay sa mbedd te saa boo xëyee mm. dinga ci jaar moo tax ku leble leble lu baax Serigne Touba moo ne woon kenn deful kenn dara mm-hmm. kenn defalul kenn dara lu ay def sa bopp nga ko def. kon lu di def na nga ko xool. bu dee danga nga leble lu baax. di nga ko fayeeku. boo leblee leneen leneen ngay fayeeku. leneen ngay yal na yàlla def jàmm. amiin amiin yal na yàlla def jàmm ngeen xamal bu baax baax a baax. macha allah. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm góor gu baax góor gu yiw góor gu tedd ne woon na lu waay am ci àddina mhm. te amuloo jàmm bu lee boo jaay ko jëndee ko jàmm te xam ne lu dul jàmm mhm. jàmm ko gën àdduna nag marché la mhm. lu fa waay jaay lu dul baax boo ko wàññee gis te pertement dëgg la anglais bi ne happiness is when we happy together. Eh yal na yàlla dolli jàmm. yal na yàlla la griot du mooy wax. bàyyi ma bàyyi Balla Mboup la suñu doyen mais kontaan bu baax a baax a baax. ndax moom saa su ne ay kàddoom daf ñuy bégloo waaye ay kàddoom dañu si jànga ah, muy lu ama am solo mbokk yi nii rek la ñu ko defee woon ak yéen di kontaan bu baax di leen jox di daje si beneen numéro jërë ngeen jëf.